Pastef tey am nañu le groupe parlementaire ah bu ma nee Pastef mooy les députés euh, de Pastef amal nañu tey euh, benn euh, conférence de presse il parle de 1062 yoo xam ne ñu ngi ci kaso yi yi ñu ngi observé grève de la faim ñu ci ëpp ñu ngi hôpitaux yi ci état bu critique loolee est que laajul aussi benn humanisme boo xam ne mën na leen permettre ñu jóge ci li ñu nekk wala da nga jàpp ne rek état bu bàyyi bu leen bàyyee faiblesse la dans ce lot figure Ousmane Sonko bien sûr. waaw man moom yéenewuma kenn euh, lu bon ah. Mhm. deuxièmement également damay fàttali ne Pastef dafa amul ba ñu tenir communiqué. non c'est les députés de Pastef. da d'accord voilà, les députés de Yewwi Askan Wi parce que soo ne député de Pastef Pastef moo amatul. amatul le Pastef a été dissous. donc loolu aussi il faut que ça soit clair. mais def nañu recours ah donc mën nañu jàpp ne ba tey am na. ma amul définitif déedéet amul amul c'est dissous c'est dissous. attaqué nañu décision bi ils ont attaqué la décision ma ne présidentiel la décret présidentiel bi génn na nest pas loolu tant que amul leneen lu nga xam ne remplacé na ko c'est dissous. ok c'est l'ex-Pastef man d'ailleurs maa leen di ñaan ñoom ñoo ñëpp nañ ñëw si parti bi ñu liggéey ensemble <laughs> ak tout ñu liggéey ensemble yaakaar pour le pour le Sénégal de demain incha allah rabi ay frère leen ay frère leen. oui ay frère leen tey ñu mel ne Bassirou Diomaye ah, nga naan ay frère ngeen. tax seen parti. loolu aussi Souleymane sëñ bi sëñ bi Basiru Basiru Jomaay Fay wax dëgg yàlla man Sonko ak kaaw Ousmane Sonko également man bugguma si sax ne fii di commenter mhm. parce que nit ku nekk vraiment si ambulance doo ñëw di tiire si ambulance si ambulance moo tax ngeen war a dox loolu loolu amul amul sens wax dëgg yàlla loolu amul sens mais justice day def liggéeyam